ministère de la santé et de l'action sociale mu leen di wax ne ngeen suivre recommandation yu mu leen di jox recommandation yu nag yu si bëri pour seen protection individuelle mais am na recommandation yoo xamante ne askan bi yépp la ko jox parce que défense collective la recommandation yooyu mooy yi président de la république validé démb ci conseil ba mu doon def sur recommandation ak rapportu commission nationale de gestion des épidémies ñuy wax ne seetlu nañ ne fan yi passé am na ay vidéo yu ñuy jaaral ci réseau sociaux yi am ay sénégalais yuy wax ne Covid 19 amul Sénégal ñuy wax ne vidéo yu mel noonu day yàq xeex bi xamante ne ñu ngi ko xeex ak Covid 19. te loolu nag képp ku ko def si réew mi yaa ngi trahir sa réew te loolu mënuñ ko bàyyi noonu moo tax suba si suba bi comité nationale de gestion des épidémies danañu réunir danañu déposer benn plainte si kanamu procureur pour que képp ku defati lu mel noonu yoon mën a del sa kaw parce que loolu trahir sa dëkk ëpp loolu si situation bi ñu toll fi mu nekk nii maa ngi leen remercier bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup Je tiens à informer l'ensemble de la population que ces informations sont fausses. Je regrette également qu'en cette période où la nation a besoin de la conjonction des forces de ses fils et de ses filles, certains individus aient l'outrecuidance de diffuser des informations mensongères. Dès demain, le Comité national de gestion des épidémies saisira le procureur de la République pour la prise en charge judiciaire de tels faits considérés comme une entrave à la réponse nationale contre le covid